bër mi kenn dëggaalewul ki mu ki mu doon kooku mooy Ababacar xalifa man man bay na ki mu doon indi Cheikh soga dem kooku mooy Ababakar ka ca barzaq tey jëflante ba tey ma kooku mooy Ababakar ka ca barzaq tey jëflante ba tey mooy Ababakar ka ca barzaq tey jëflante cër ak ki dogal ami zenzen ci diine te yëngul kooku mooy Ababakar yi sëñ Babacar yi. bu nu sàggan ci Babacar. ana ñi bëgg sëñ Babacar si. bu nu sàggan ci Babacar. ana soppe yi alxaji Mansoor. bu nu sàggan ci Babacar. ana soppe yi alxaji Abdou. bu nu sàggan ci Babacar. ana soppe yi alxaji Habib si. bu nu sàggan ci Babacar. ana soppe yi Serigne Mansoor. bu nu sàggan ci. bismillahi rahmaani rahim. Euh, mbokki téléspectateurs téléspectateurs yi la 7TV la télé qui nous ressemble et qui nous rassemble ba tey rek ni ñu leen ko waxee woon rek ñu ngi fii ci Tiwaawoon li ñu tax a ñëw nag mooy màggal rek juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ah, wax nañ leen ne du ñu bàyyi kenn rek ci njabootam gi fu njaboot gi fekk rek dana nekk rek danañ leen fa fekk incha allah danañ leen ziyaara danañ leen dékk suñu micro taataan ci ñoom waaye dinañ sàkku ci ñoom it ñaan. tey nag ñu ngi fii nag ci kër sëñ kër Sy bu El Hadj Sy Aminta ñu ngi nii toog ci suñu ndeyjoor borom toogaay bu jekk bi macha allah ñuy ñaan yàlla nag yàlla yàlla bàyyi ko ci kanam njaboot gi ñu ko fi fekk nag ay at yu baree baree bare te yàlla dolli barkeem yàlla dolli xéewalam yàlla dolli jàmm fa tabarakallahu toogaay bi jekk na mag ñi bu ñu dellu si waatoon du soppi toogaayam uuf na njaboot gi uuf na taalibe yi loolu nag ñu ngi ñaan yàlla ci barke Sidil Hadji Malick barke Serigne Babacar Sy yàlla na yàgg lool yàlla na yàgg lool waaye dañ leen di bàyyi rek nag ak euh, mbokkam sëriñ Ousmane si mu nekk nit sama ndijoor mu def présentation bi rek bu ko defee rek ñu taataan kàdduy sëñ Babacar Sy lu ñu ci amee rek incha allah danañu ko doyloo te sàkku ci moom ñaan mu ñaanal la 7TV waaye mu ñaanal suñu directrice Maimouna Ndour Faye ngir te la 7TV dem ca kaw ca kanam incha allah ci barke Seydina Mouhamed ak ci barke maam Sidil Hadji Malick barke maamam Sëñ Babacar Sy. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ñu ngi leen di baalu xaq di leen baal xaq ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole baal. ngi leen di siyaare di leen ndokkeel ci bis bu màgg bii di guddig yonent bi alayhi salaatu salaam xam ne guddi yëpp guddeem la fa tabaarakallaahu waaye date bi mu juddoo da ci raw. tey nag ñu nekk fii ci kër Serigne Babacar Sy Serigne Mbaye Sy Khady dañ ko gën a miinee eh, ñun nag maa ngi tudd Ousmane si dëkk Mbirkilaan kër laa ji ma waaye maag Serigne Mbaye suñu ñaani maam bokk ndeeg baay muy sama sang bu baax moo tax lii fekk ma fi maa ngi fii ci kër Serigne Mbaye Serigne Mbaye Khady nag tabaarakallaahu ci njaboot gi la bokk ci njaboot gi la bokk ndax wax naa léegi ne ñeenti maamam yëpp ñu ngi bokk ci jàmm bu na ñeenti maamam yëpp ci jàmm bu na lañu bokk bu dee ko jur yaayam soxna Aseetu Mbay ci lema bu la bokk bu dee ko jur yaayam di góor waa juróomu góor mu ngi bokk ci lema bu ne mu tudd Ahmad Lamine Si kon yaayam ndey ja ak baaj yëpp ci ak jama bu lay bokk macha allah bu dee papam alaaji si aminta ku ñuy wax aminta sala am sant si am si ñu koy am di sala mooy yaayam ñu ngi bokk ci jama bu bu dee papam Mamoor Mamoor si Mamoor Fati mooy papaam bokk ci dema bun na kon sëñ Mbay ñeenti maamam yëpp demam na la bokk moom bet li wax bet wa rawatina nag moom mu nekk bete bete ndax yaayam si la sant baayam sant si macha allah waaye loolu lépp nag macha allah da ko teg suuf moom nekk taalibi rek nekk tiwaawoon fii di jàng ci baayam uuf ko tabaarakallaahu góor góorgóorlu jàng ba yàlla dimbale ko mu génn bitim réew dem jàngi ñëw nekk ak waajuram ba waajuram génn àdduna mu uuf njaboot bi fa tabaarakallaahu uufin ba fa nag yàlla def mu amañ ñëpp jàmm nag kër yëpp bàyyam nag waajuram góor wax naa fii ñu bëri ne ñu bëri ni ñëwee Tiwaawan bokkut ak ba papay sëñ Bay ni mu fi ñëwee ñu bëri ni fi ñëwee bokkut ak papay sëñ Bay ni fi ñëwee sa mbaaki ñu bëri dañu ñëw jàng bam dëkk bi neex ñu toog am fi kër am fi soxna moom papaam dafa nekkoon biik laan ci laaji ma xudis dafa jàng feebar mënut a nekk ci àll ba laaji ma xudis bi na leetar ci loxoom jox ko sëñ Babacar si ci loxoom di boole ko papaam papaam loolu ko ni Tiwaawan kon moom ñëwum fii bokk te ñëw yu bëree bëree bëri bëri macha allahu ñoom nag xam nañ loolu ma macha allahu seen papa yoon daara fii ci kër gi dana kër si Babacar di bay yor tool di bay sëñ bay ñoom ñi dañu tool di bay mu yar leen ci loolu tàggal lañ ci bañ bañ bànn ci loolu xale yëpp fa tabarakallahu seen bay loolu lay doxal ak rakam ñu bokkal ndey ak ñu bokkal baay ñëpp loolu topp liggéey ñàkkee dund bokkal seen seen bopp mi ngi am ay tool ca Saalum Saaña su ko fa su ko neexoon toog fii bu dee añ ak reer am na ko bu dee ndékk am na ko bu dee lum sol am na ko bu dee la faja aaju am na ko waaye nag nee na nag dafa war a ñàq dafa war a liggéey ndax sëñ sëñ seex nee na képp ko teew te kanam suñu borom te amoo métier da nga am na nit day am métier lu seen métier nga a nangam sëriñ nag sëriñ mbay ak jàngale mooy métier ak commerce moo tax sëriñ bay xam loolu dem ca Saalum am fa ay tool dafa dafa kër gu mucc ayib yóbbu fa soxnaam am fa daara am fa école arabe am fa lépp di bay mu toog ñaari weer du nekk fii sëñ bi xadi Dakar di koy soxla te awoon soxla ko di ko laaj mu nekk ci àll bi soo ko fekkee da ngay waaru at mi a nekkee boo demee guddi amul làmp ndox benn xaar da ko ñëw fekk ko fi mu nekk ko bàyyi ma rek góor góorgóor ndax comme kilifa yi yemam fi yebal bàyyi dana baax ndax kilifa fi la yebal ñoo la fa jiitu tabaarakallahu mu nekk ci loolu di góorgóorlu ba léegi tey jii sant yàlla mi ngi foofu di góorgóorlu kon nag ñu ngi leen koy xamal ne doomu soxna la ku jàng la ku am xam-xam la ku am jom la ku nangoo liggéey la ndax lii nga gis nii ba mu koy am tiyaawan booba xale yu a amaguñ ko lii mu am nii ba mu koy am tiyaawan boobu xale yu bëri amaguñ ko waaye fa tabaarakallaahu mu bàyyi yëpp dem ci àll bi liggéey kon daal askor na nangoo ñaq na daan dooleem askor su nangoo liggéey te du yàq du tooñ buur buur la as gor su nangoo liggéey du yàq du tooñ buur buur la boo bañ a gàcc sa kanam moroom nangul liggéey soo bañ a gàcc sa kanam boroom jaamul yàlla kon sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm nag waa tele bi 7TV ñu ngi leen gërëm bu baax ndax lii ngeen def yitte la bisu gàmmu ni mu xatee ngeen war ci kër sëriñ yëpp fenn fu nekk ngeen dem fa ziyaara leen ndokkante ñoom saafante ñeenti guddi gi sàkku ci ñoom ñaan yàlla yàlla jàppale leen loolu dafa koy bàyyi sëriñ mbay mu ñaanal leen waaye xam ne ne am ñu suñu xool sedd ñun ñi nga xam njaboot gi lañ suñu xool sedd na ci yéen lool wa tabarakallahu ñu ngi leen sant di leen gërëm ma jox kàddu gi sëriñ mbay si wasalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu Ousmane kontaan nañu kàddu yi matale na jotale na yàlla na yàggal sa taxawaay dafa tabarakallahu kon nag dañuy jox kàddu gi rek euh, sëriñ Babacar sëriñ Babacar dañu ñëw en tant que talibé dañu ñëw ziyaara ziyaara istimdaadiya ndax ñun fii la am fii la ñu gëm fii la ñu wóolu fii la yaakaar waaye ñëwit nag ci turu tele bi waaye nag ñi ngi lay taataan suñu micro nag sa kàddu lu mu néew néew xëy dana rëy ci ñun moo xam benn kàddu la moo xam ñaari kàddu la li ñu tax a jóg daal mooy taataan ci li nga xamante ni ñu ko mën a doole rek ci li aju ci gàmm gi muy bàyyeeko ci njabootu Seydil Hadji Malick jëm ci njaboot gi te nga ñaanal ñu ñaanal télé bi waaye ñaanal suñu kilifa muy Adja Maimouna Ndour Faye di ñaan yàlla na yàlla bàyyi la fi bàyyi ñu fi ak mu jot ñu la fi fekk bi jaay rasulilah salaam. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ndokkeel di nuyu sëñ imam Guèye fii sa kër la yàgg nga fay ñëw ñun nag li nga xam ne moo waral guddi gi duñ ci sori dafa am tuuti rek luñ ci wax loo xam ne bi dañ koy tënk rek. ndax xat na ana minallaahi mini di ko yonent bi wax ne maag jullit yéen ak man la man ak man maag maag suñu la loolu bokk na ci tekk li nga xam ne moom lañ Sidi Hadj Malick jàngal ba tax mu mu taxawal bis bii waaw inna allaha ba malaykatahu yusalluuna ala nabi loolu bokk na ci moom nag mënoon naa woote bisam ndax bu dee xam-xam bi am na ko moom moo Seydi Hadji Malick bu dee mbooloo mi am na ko bu dee yar bi am na ko waaye daan wax ne su ma su ma bëree sama tarixa saatu fatiha fa ko jëlee saatu fatiha fa laa ko jëlee moo tax mu tënku ci tarixa cheikh moo tax mu tënku ci tarixa cheikh kon nag ñoo sant ñoo ngi leen di gërëm di gërëm waa télé bi waa set tv seen taxawaay ku nekk xam ne tey jot amul waaye ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw ngir def bi reportage li nga def mi réndi ci ñun lool yan yàlla fay leen yan yàlla fay leen yal na yàlla yokk seen télé ba ngeen ba fa ngeen bëgg àgg ci barki bis bi yàlla yàlla àggal leen ko di sant di gërëm suñu jigéen bi muy Ndour Faye yal na ko yàlla jàppale bu baax a baax a baax yàlla aar ko yàlla sàmm ko sàmm télé bi di nuyu ñëpp nag képp ku ñu daal ñoo ñoo lay ñaal yàlla ñoo lay sant ñoo lay gërëm ndax ñun amuñu dul ak am ñu dul gàmmu Tiwaawan ak ku nekk nag ak sa ak sa ma ngi cay jàpp yéen a ngi jàpp fii am na ñeneen jàpp fi leen jàpp ngeen fi sant nañ leen gërëm na leen dana ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu kon nag téléspectateurs yi Euh, lii mooy li nga xamante ne moom la ñu leen euh, jëlal seen woon fii ci kër seen baabu Sy El Hadj Sy Aminta dégg ngeen kàddu yu rafet yi ni ñu leen ko faral di waxee rek te waawoon moom yàlla nee na yonent bi nee na rek moo fi nekk kàddu yooyu rek la see la feddaliwaat comme ni nga xamante ne kilifa yu baax yit noonu la ñu koy defee. kon nag euh, li ci des rek mooy ñu ñaanal ko yàlla waaye it nag dégg suñuy loxo mu ñaanalu yàlla yàlla yokk ko ci zaahir ak ci baatin ñu yàgg ko ko fekk nag yàgg ko fekk yàlla dolli ko ci mbooleem fànn yàlla na la yàlla dolli ci mbooleem fan yi yàlla na yàlla yokk wér gi yàlla na yàlla féq fan wi yàlla na yàlla sàmm la yàlla aar la sàmm la njaboot gi aar la njaboot gi ñu yàgg la fee fekk ay at yu bari nga yàgg ñoo teeru ay at yu bari kon nag li ci des rek mooy nga ñaanal ñu te ñaanal télé bi la 7TV ca kaw ca kanam waaye ñaanal suñu mën a Ndour Faye moom it jigéen ju mën góor la yàlla gën koo kàttanal gën koo dooleel war na ko liggéeyal Seydi Bara war na ko liggéeyal Seydi Mbaye na ko liggéeyal Seydi faatu da ngay nelaw nelaw yowoo ji aljana taalibi ana ñi bëgg sëñ Babacar Si bu nu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay nañu wayloo te toppi ko mbay ba mu jiitoo newul si nun mbay la ko jiital newul si nun mbay dafa ànd ak mayam yow day mbay dafa ànd ak mayam yow day mbay dafa ànd ak mayam yow day mbay su bu jiitoo ñu topp ca ñun bu nu jàkkee mbay jàlle noo mbay bu nu tiitee ma wàlla noo ajabal bi min xayalin qad sara qad sara qad sara wa sabani qad jafa tayful kara 7 TV, votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur